jërë jëf mbëkk mbokki internet yi ñi si seetaan euh, Walf Net euh, tey ñu fas yéene dalal ci entretien bi Modou Biram Ndiaye international sénégalais bu nekk Victoria Plizen nekk milieu terrain di fa amal eh, ay eh, jong ay eh, match yu am solo sax waaye nag fii Sénégal la tàmbale yooyu waxtaan ponk lañ fas yéene waxtaan ak moom fu mu tàmbalee football bi fan la jaar ak fu mu tollee ak équipe nationale ndax Aliou Cissé mës na ko woo am déet lépp di ngeen koo xam ci biir entretien bi bu yembee rek ñu dalal ki nga xamante ne moo di moo du Biram Ndiaye léegi léegi lee doon ñu nag moom ci entretien bi Modou nuyu naa la. Euh, yaa ngi ci jàmm naka foofu. ça va maa bu baax alhamdulilah. mu ngi sedd walla mu ngi tàng. waaye saa yi nii mu ngi sedd mu ngi sedd. <laughs> Modou nuyu nañ la dañu tàmbali suñu entretien bi commencé ko sa saison bi ren eh, nu mu demee bi ngeen tàmbaleek léegi foo leen ci toll ak foo ci toll yooyu. Eh, waaw d'abord maa lay nuyu di nuyu ñuy seetaan ci seen plateforme Eh, di nuyu eh, ma famille ak eh, sama xarit yeeg ñëpp ñu seetaan mm-hmm. di leen remercier aussi ci invitation bi bon saison bi voilà ñu ngi si ba léegi dugg nañ si jàmm ñu ngi continuer di jouer ñu ngi si match retour yi dese nañu sept match ak championnat ak cinq match playoff là on est deuxième au classement deux points la ñu premier bi weekend prochain sax voilà ñoom moom lañu war a dajeel pour derby d'accord sinon à part ça voilà euh, bi match saison bi tàmbali est-ce que match yëpp nga joué wala am na yi nga xamante ne dang koy tàmbali ci banc waaw bi match bi commencé bon maa ngi joué maa ngi joué euh, après bon match yoo xam ne voilà le coach il tourne l'équipe donc voilà da lay teg wala mu dugal euh, cours de match et mais ça va, alhamdulillah, tout se passe bien. En plus, euh, voilà, saison on a une chance pour découvrir les compétitions et et tout. Mm. li si mel ni euh, la Ligue des Champions donc sant yàlla bu baax tout se passe bien quoi. d'accord Euh, wax nga ko tam euh, saison bi joué ngeen Ligue des Champions noo gisee sa seen participation sa personnellement sa participation ci Ligue des Champions bi ñu fàttali leen dañuy ngeen. ak euh, mm-hmm. Bayern bu Sadio maane sa compatriote bi. waaw waaw franchement ça a été boo xam ne jàng nañ si lu bëree bëri personnellement et voilà ak l' équipe aussi parce que équipe bi voilà am na habitude dem Ligue des Champions et Euh, man cela c'était la première fois mu nekk expérience bu franchement boo xam ne euh, euh, mën naa ne du ma fàtte jàng naa si lu bëree bëri découvrir jeu ak yenn équipe yu mag yi côtoyer les grands joueurs c'est un truc qui m'a qui m'a fait du bien en plus voilà tax na ma jël maturité voilà nag sama bopp par rapport ak et tout d'accord donc ça fait plaisir. bu dee am ay regrets yi ngeen nourrir participer li mel ni Ligue des champions muy compétition bu gën a mag mun nañ ne ci Europe euh, nga participer ki yar regret nga ci am ba sori woo leen ba ngeen toog bi ngeen toogee ba pare. après je je pas regret parce que voilà ñun euh, poule bu nekkoon moom la ñu tuddee woon de la mort. Mm. poule boo xam ne Barça Inter et Bayern donc voilà euh, ñu nekk petite poussette. donc c'était normal c'était normal ñun sax bi tirage bi génnee xamoon nañ ne ça va être difficile pour ñu génn si ñett équipe yi comme ñu ko moom problème pour génn donc euh, voilà ñun dañ si dañ dañ dañ si demoon pour yokk pour jàng voilà euh, match yi aussi voilà match yi métti la woon parce que tey équipe yooyu ñoo xam ne joué wuñ sax pour génn mais dañuy joué pour jël Ligue des champions bi donc yow voilà nga nekk benn équipe bu ndaw. donc doo def lu dul défaite yooyu wala match yooyu loolu si mënti am nga jël ko comme expérience pour prochaine fois. d'accord Modou euh, jaar nga euh, Alliance Arena bu Bayern ay stade yu mag bu Inter Giuseppe Meazza nga daal Camp Nou tamit yan anecdote nga ci ñu ci mën a raconter wala yan lan moo la frappé bi nga duggee ci stade yu mag yooyu. tu vois que le niveau football. Euh, c'est le haut niveau c'est c'est pas demul ay caaxaan wala des trucs comme ça parce que c'est des équipes yoo xam ne dañuy dund football mu jaral leen lu ne dañuy réussir voilà donc euh, mu nekk ay expérience yoo xam ne euh, c'est c'est des souvenirs yoo xam ne du ma ko fàtte si sama carrière football après voilà côtoyé nañu aussi des donc euh, voilà ça fait plaisir ça fait toujours plaisir. d' accord bi nga pare ak euh, Bayern Sadio Mané yan conseil la la jox ak euh, loola waxtaan. Euh, Sadio bi nekkee si tunnel yi di waaj génn bon leen nuyonte affaire yooyu noonu souhaitante bonne chance après bi bi bi mu xaar mu sumi ma ma jox ma ko ñooy saajante ma un geste boo xam ne voilà loolu du chaque jour ma wax du du lu ndaw du lu may fàtte parce que Sadio dafa jour bu mag la c'est il fait partie des meilleurs joueurs au monde tu vois match yi ñu mi xaar match yi wala yooyu mais mi-temps mu sumi mayoom xaar la nga ñëw mu may la ko mu ngeen échangé mayoo tu en plus bi dugg si tunnel bi euh, dafa xawoon dafa xawoon dafa xawoon sedd mais dama fàttewuñ sol sama sama collant mhm. du coup sama veste bi kii euh, GPS bi rek la la soloon mhm. mais sama tubéy bi sama tubéy bi mu ngi wàcc léegi biñ même biñ dugg bi si vestiaire yi Sadio mu ngi daw sama ginnaaw mhm. yëkkati yëkkatil ma sama tubéy bi tu vois mu nekk des gestes yoo xam ne en dehors du football dafa nekk nit koo xam ne franchement voilà il est noonu quoi nit baax la d' accord eh, léegi sa saison bi nee nga tàmbale ngeen ko yéen ngi ci ban objectif nga fixé wu sa bopp yow personnellement ban objectif nga fixé. alors bon comme yàlla def na voilà ñu ngi si championnat ba léegi bon dañuy continuer di liggéey après objectif yi mooy passer étape bi dem si beneen étape loolu mooy suñu objectif après am na yeneen objectif équipe nationale tout ça. mais doo jékki-jékki rek ne voilà da ngay def ndànk ndànk step by step ak liggéey bu bëri xam nga récupérer affaire yooyu noonu bañ a parce que fi ñu jógee sori na voilà yàlla def na dëkk bi fi ñu dëkk fi ñu fi ñu dëkk sax ñu ñëw fa njëkk jouer Ligue des champions xam ne duñ ko dàq nit ñi wala voilà mais lu suñ borom def la donc j'ai un plan de carrière di remercier sama agent yeeg ñëpp ñu may conseiller et ma famille donc voilà ñu may teg si yoon boo xam ne moo ko wàccu daal am nañu yaakaar bu baax a baax ne euh, fi jour yi mag a di àgg mën naa fa foofu Victoria Plzen yow lan mooy sa rapport ak entraîneur bi supporter yi ak président club bi. waaw après ici euh, franchement dañu bëgg nañu bëgg muy président bi muy le coach muy euh, supporter aussi on parle souvent parce que équipe bi bëriwul étranger deux trois lañ fii donc euh, voilà damay neex a xam te noir en plus étranger yi bëri yuñ fi aussi ci dëkk bi donc même soo génnee nii sax damay rencontrer des gens affaire yooyu noonu c'est pour ça que man moom du may di génn quoi parce que yooyu moo après voilà rapport yi bien la am ak coach yeeg euh, que voilà ici se comme une famille en plus les gens sont gentils quoi noo noo jàngatee niveau de champion championnat bu république république nga gëm gëm nga ni niveau bu baax la bi nga euh, defee expérience Ligue des champions noo noo noo sa niveau championnat bi. waaye niveau bu baax la franchement niveau bu baax la en plus football c'est physique c'est tactique surtout comme naan gars fi joueur tchèque yi dañoo dañoo dañoo dañ physique trop championnat bi dafa physique euh, voilà. ñun éliminatoire on a éliminé ay équipes yu mag yoo xam ne tey jii nii dem nañ Europa League wala conférence league yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci évolué ñu ngi ñu ngi ñu ngi qualifié et tout donc voilà ça veut dire que niveau bi baax na et tout c'est voilà équipe yu baax fi na aussi bu ñu fàttee a deux ans am na benn équipe bu mag bu éliminé woon ay Leicester ay Nice affaire yooyu noonu Europa League bon comme suñu rival la ñu bañ a tudd turam quoi. kon mi euh, li nga xamante ne mooy euh, euh, Sénégal équipe nationale est-ce que yow Aliou mus na laa contacter wala mus nga am benn discussion bi ngeen mus a def wala mus naa jóge Sénégal seet si la fi nga nekk bu dul Aliou Cissé directeur technique national wala keneen ci autorité wala keneen ci fédéro yi Sénégal. bon a Cissé bon mosuñ déggante je n'ai pas eu encore le contact ak lui mais je sais que mu ngi suivre comme ni nga ko waxee Sénégalais yëpp fépp fu ñu nekk si àdduna voilà donc pour le moment mooy seetaan quoi après nag pour ay sélection ak yooyu noonu bu jotee rek dina yomb le plus important mooy nga nekk si ba ba mu ñëw bañ a voilà te newoo si dara des trucs comme ça pour man sélection bi mu ngi sama kanam voilà là am na benn groupe bu nekk en place voilà donc duñ euh, def lu entraîner xaar suñu heure bu jotee incha allah. est-ce que est-ce que pare nga saisir sa chance parce que gis nañ ne yaa ngi ne sélection bu nekk mais am na yeneen yow milieu terrain ngay évoluer poste boobu gis nañ ni ñu bëri ñu fa nekk ils sont vieillissants ñu ngi waaj a génnee ci ci ci club bi est-ce que yow fas yéene nga préparé wu nga saisir sa chance ci loolu. waaw ñun moom comme ay compétiteurs lañ ñun moom pare nañ ci situation yëpp. perd nañ situation yëpp après comme tu le dis bon football moom amul âge ñun africain ñooy ñooy ñooy ñooy paral souvent di sànni xeer ay diw mag la affaire yoo noonu mais voilà équipe yoo dem di nga gis nag baax na si équipe parce que dañu am expérience et tout donc pour accompagner les plus jeunes affaires yooyu noonu ñun pare nañ pare nañ incha allah rabi bés bu yàlla defee ñu ñu ñu ñu yegg si rek incha allah dinañ saisir suñu chance bu baax a baax a baax d'accord euh, euh, à part Aliou Cissé amul DTN Maya Sine Mar directeur technique national wala fédéraux yi ki nga mu musa waxtaana non après je connais des coachs ay yoo xam ne dañuy liggéey à fédération et tout voilà jot nañu échanger ñu jox la ay conseils après yooyu noonu donc juste ça mais après voilà loolu dañ ci amagum d' accord euh, yow gis nga ne Sénégal CHAN yow joué nga fi AS Douane balaa ngay dem euh, nga gis Sénégal léegi équipe national local dem jël CHAN euh, est ce que yow lan lan lan la ñuy am yenn amoo leen ba ngeen doon chance pour jël CHAN bi. après bon gëjoon nañ qualifié CHAN aussi hmm. je pense que du côté talent parce ñun tamit bi ñuy joué. je peux dire même que niveau championnat si la gën a neex période boobu ñuy joué Demba Diop c'est-à-dire festel tout après nag Demba Diop ñu ko tëjee si joué na si lu bëri affaire yooyu noonu en plus léegi sax bu xoolee championnat bi voilà xaw na xaw na des comme ni mu mais y a de bons joueurs en plus l'aide des centres de formation ay Génération Foot et donc voilà championnat bi ma def sélection Sénégal local bu baax a baax a baax euh, du jafe daal euh, équipe bu compétitive boo xam ne dina mën a ay chan ak affaire yooyu noonu. d'accord euh, ci ci ñu bëri dañuy wax tamit centre yi mel ni Guéréo ak Jules François Bocandé bu Toubab Dialaw comme coach Pape lu mu am. am temps jouer mm. ay match yu bëri laataa muy de looloo ko mayoon mm. chance te yéen amoo leen woon loolu mm. quelques jours regroupement la ngeen di def rek wala euh, après ngeen dem euh, jouer yaakaar nga ne loolu tamit sa a compté euh, ça c'est parce que là coach yi dañuy dañuy am temps parce que compétition bëri dafa bëri léegi boo xoolee muy ci ay U20 ay u compétition yi dafay bëri presque chaque trois mois wala six mois tu vois di nga Euh, def regroupement affaire yooyu en plus c'est bien je vois que sélection ñu yor équipe nationale jeunes yi ngi def ay présélection di envoyer di di di di di convoquer ay jours en stage après nga convoquer trente c'est bien day tax na voilà teel a pour ay compétition bu war a ñëw te mooy waral tey jii nii résultat yi nii te continue comme ça parce que voilà Sénégal bu gis nga euh, Sénégal bu njëkk ba ça gagné pas dañuy jouer mais dañuy peine mais léegi sa commence à gagner ñu ngi jël ay coups euh, lan nga yaakaar ni lan loo waral loolu léegi euh, ci continuité ak lan lañ fas yéene de pour loolu ñu continuer ci lancé boobu. bon pour man voilà li tax ñuy gagné ni ñi fi jógee te gagné ñoo ko liggéey quoi muy di ay génération deux mille deux et tout donc voilà le travail a continué moo. moo waral ça a récolté ses fruits aujourd'hui donc continuer ci même lancé bi ba ñu bàyyi xam ne voilà Sénégal dëkk football la Sénégal boo génnee nga xam ne dëkk football la les gens les joueurs sénégalais dañu respecté ci àdduna bi fépp fu ñu mënti nekk donc Sénégal du du du dëkk bu ndaw. Eh, est-ce que est-ce que jamono ji yow euh, am nga ay club yi nga xamante ñu ngi lay contacter pour nga pour pour dem parce que mercato lañu jógee est-ce que yaa ngi am ay contact fu nekk via sa agent. waaw waaw waaw après bon même même hiver bi nii euh, voilà amoon na ay opportunité yu bëri bon mais voilà club bi nangu woon ma dem tout coach bi il comptait sur pour ma rester ba fin saison bi. donc ñu ngi si yooyu noonu parce que loolu tamit sama objectif la pour man voilà j'étais venu ici pour benn tremplin après yàlla def na xuma la tremplin sax mais am nga si loo xam ne voilà kaw sa njort muy yi gagné si championnat parce que l'année passée ñoo gagné championnat bi cette année aussi voilà ñu ngi ñu ngi lutter pour pour jëlaat ko donc voilà te pour man jot na instant yi nii pour beneen beneen beneen challenge quoi mais lépp bon ñu liggéey pareil suñu agent mu def liggéeyam. d'accord ñu concentré aussi terrain bi après li yàlla def rek xam ne noonu. sama avant dernière question mooy ni ki euh, jamono ji ban championnat ngay rêvé dem yu mu lay yu lay yu lay rêvé ak ban jour mooy sa idole. après aw ma aw ma choix en tout cas voilà Angleterre. c'est bon, France, ça va, Espagne aussi hein. championnat yooyu euh, moom. ñu bëri yor ñu yow profil Angleterre nga yor. waaw gars Angleterre Angleterre ñu ne pratique daal boo fa demee di nga ci di nga waaw waaw en nag dañu xaw a am tuuti ak football tchèque bi nag. Eh parce que c'est physique en plus voilà. mooy loolu. Mm. xam naa loolu moo tax. <laughs> d'accord léegi Modou ñu ñu euh, bàyyi la euh, léegi mu jeex question mooy ni ki yow naka la la virus football duggee ba nga est-ce que bi nga tàmbalee yaakaaroon nga ne di nga mus doon professionnel ba ngay dem jouer euh, ji ji Europe. alors maa ngi débuté HLM Saara sama koñ Kaolack mm. football ci koñ bi nii nekk xale après école football koñ bi Jules Diagne yoroon ko coach. par la suite euh, bon comme sama waa gaale nag période boobu noonu nanguwul ñu ma bàyyi football kese te en plus dama doon rek xam nga affaire yooyu après si lañ ma jël tànn ma fu ne pour may jàng affaire yooyu rek su ma demee football boobu laay topp boobu voilà après si la si lañ ma sam tonton sam benn nijaay su ma si muy euh, yóbbu. daal àll mm. pour may jàng en même di football après voilà voilà mes BFM seconde première terminale foofu aussi j'ai joué au petite catégorie ma doon capitaine junior cadet ak junior ba bi may def bac après bac ma def bac benn yoon ñu téemu deuxième tour gars yi wax pour ma moo dañuy ñëwaat jàng ma ne leen bàyyi naa jàngatuma comme tamit li ma parce que année boobu dama ne damay def lépp pour mu am wàññi football bi sax pour am après kër ñu may ma jàng ma dem defi football man ma football bi après voilà après bac bon centre bi aussi dañu woo pour ma reprendre affaire yoo ma leen noo man damay footballiste la ma beneen tonton après proposé. président douane bi que je remercie aussi Bassirou hmm. Ndiaye pour ma ñëw def test affaire yooyu noonu bon ma dem def test et tout boobu Karim Sega moo fa newoon après ay cinq jours yooyu noonu si la si la ma defee test yi pare je me rappelle maa ngi war a ñibbi Kaolack maa ngi war a ma dugg ci ma jël horaire bi léegi ma jël horaire bi ma ñëwee Fatick ñu pause dañoo pause pour am ñuy ak affaire yooyu noonu si la ma président bi woo ne ma bon jël nañ la affaire yooyu noonu semaine prochaine dama rejoindre équipe bi hivernale vingt troisième bi ma après ma dem Kaolack jël sama bagage ñëwaat ñu nekk douane xam nga championnat bi aussi joué naa Ligue des champions africaine bi Corée di éliminé gagné fa trophée de l'Assemblée coupe de la Ligue et tout ça le président aussi après si laa fa jógee ñëw benn euh, am benn agent bu ñu proposé Evian Tomodera Evian aussi bi may dem foofu noonu boobu ñoom septième division lañ newee mais man sama objectif moo ne woon comme Sénégal instant yii nii xam nañu amatul lu muy pro pro naa dem voilà naa dem après voilà président bi aussi Bassirou Ndiaye maa ngi koy de passage facilité moo parce que mu nga fa nekk di laaj transfert affaire yooyu noonu mais def ko te mu ñëw mu voilà mu laissé ma libre comme ça ma dem après si laa ne Evian deux ans trois ans waaw année bi fa nekk yëpp nag chaque après ñu yéeg jógee division division après ñu am quelques at at ak agent euh, fa newoon xam parce que équipe dafa commencé dafa amoon yeneen Sénégalais yu fa nekk te man rek maa doon joué affaire yooyu noonu loolu nag da ko métti woon après bon mu décidé voilà génne yeneen boy si équipe bi affaire yooyu noonu après man si laa ñëw Tchèque benn bu deuxième division ça n'a pas été facile aussi parce que toogoon naa France six mois j'avais pas de club te entraîné sama nekk sama benn club Nijaay et tout. après bi nga ñëwee fii nii aussi fekkoon na nit ñi commencé ñu commencé ñu ëpp ba nga ngay entraîné individuellement ak euh, ak équipe c'est pas beaucoup après ma commencé jël sama rythme tuuti blessé ma blessé et tout après ñëwaat blessé voilà club aussi benn ligue de bëggoon rompre contrat voilà on me plus bu ma remboursé du ma ñu des trucs comme ça affaire racisme tu vois para que sean, se um empenho um preço especial. Vou France, como a Espanha, des trucs comme ça. après, Mouer, si dernier mois, il a fait un bout de barre, barre, barre. Voilà, après, là, bon, nous, dans le défi, il après, nous, on bouge dans yooyu noonu après si la si la ma prison de père si la ñu prison il y a deux ans affaire yooyu noonu donc maa ngi fi ba léegi alhamdulilah tout se donc voilà loolu cursus bi am ko. voilà jërëjëf Modou Biram ñu kontaan nañ bu baax a baax nga répondre suñu invitation Walfnet. merci lay jaajëfal suñu carrière bu mucc ayib euh, nga ñëw équipe na amiin amiin amiin la. amiin amiin amiin merci beaucoup yéen tamit di di leen di rafetlu invitation bi et tout di nuyu ñëpp ñu ngi doon seetaan di leen wax jaajëf. merci jërëjëf. merci beaucoup merci.